exécutif de Jamra responsable ba ca kaw imam Massamba ba ci Thioub amul kenn ci ñun kuy militaire rawatina ancien combattant li ñuy dugal ci dossier bi le secretaire général di collectif des anciens combattants de la guerre du Golfe di Abdoulaye Diouf leeral na ko ñoom ñoo ñëw sàkku ci Jamra par écrit par lettre en date du 7 octobre 2011 xam na loolu xaw naa yàgg tuuti 7 octobre 2011 signé par le président du collectif des anciens combattants de la guerre du Golfe Alhaji Maguette Sall et contresigné par le défunt sous-officier Fallou Niang ñoo bind lettre Jamra sàkku si ñun ñu taxawu leen ci injustice bi tegee seen kaw mu di ay ndàmpaay yu Arabie Saoudite yónnee ak Nations Unies ay samba boy yu wow xol détourné ko bañ ñu ko waxee ñun ñu daal di leen ko nangul waaye nee nañ leen à condition ñu gëstu ko si ñu gëstu bopp ba ñu ko gëstoo suñu gëstu bopp ba am ci ay firnde yu wér ci la ñaan audience je rappelle que c'était en 2011 président Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade daal di imputé dossier bi son ministre conseiller et porte-parole de la présidence le ministre Serigne Mbacké Ndiaye Serigne Mbacké Ndiaye jox ma audience pour recevoir ma au nom du président Abdoulaye Wade waaye ñaari dossier la joxoon président Abdoulaye Wade mu di le dossier de la SOTRAC et le dossier des anciens combattants de la guerre du Golfe ndax xam ngeen ne SOTRAC état bi daf ko tas remplacé ko par Dakar Dem Dikk mais amul woon plan social pour que ñi ñi dàq mën a jot seen ndàmpaay ils sont partis les mains mu metti lool comme ni mu mettee tey ci jàmbaar yi yéen a fàttaliku yi itam ba Jamra jógee di def médiation pour Sotrac nous n'étions pas seuls dañu lëkkaloo woon ak Alioune bu Borado lëkkaloo ak Iba Der Thiam qui était à l'époque vice-président de l'Assemblée nationale lëkkaloo itam ak Soxna Fatou Sow Sarr sociologue ak Abdoulatif Gueye nekk fa Jamra yàlla dogal ba 9 milliards yi leen état bi ameloon naxante nañu ak état ba foqati 5 milliards jox ko waa Sotrac mu desoon 4 milliards looloo waraloon ma bindoon Ablaye Wade pour ñaan ko audience ci affaire Sotrac tombeek ñoom fallu ñëw sur le dossier des anciens combattants de la guerre du Golfe muy deux dossiers bi lay Ablaye Wade booleeg Serigne Mbacke Ndiaye sëñ Mbacke Ndiaye ne ma Ablaye Wade nee na nañ ko def dossier par dossier comme que dossier Sotrac moo fi jiitu nañu commencé ci dossier boobu mu jox ma audience au palais ma daal di ànd ak le délégué de la Sotrac Cheikh Talibouya Ouattara ñu daal di ci tàmbali di liggéey man ak moom ak Serigne Mbacke Ndiaye ba dossier bi avancé bu baax a baax pour 4 milliards yi lañ état bi ameel ñu seet nu ñu kay nu ñuy fexe ba ñu jot comme que c'était en octobre 2011. On était à deux mois de l'ouverture de la campagne électorale et vous devinez bien que par la suite jot ci ñoom dal di jafe ba campagne ba passé élection am vous connaissez la suite ce régime a été remplacé par un autre le régime Macky Sall dal di ñëw et affaire u jàmbaar yi daal di bloqué amatuñu interlocuteur ci laa jóg nag doon seet pexe nu ñu mën a def ba relancer dossier jàmbaar yi ma bind lettre président Macky Sall mu boole ma avec le ministre des forces armées de l'époque Augustin tin waaye ministre bi daal di saisir l'opportunité d'une émission buy am TFM ñu di ko wax jàkkaarloo le blessé de guerre Makalou Cissé représenté foon collectif bi Augustin Tine def lu rafet daal di dugg ci émission bi comme wax sa xalaat yi rek daal di invité Makalu nekk je suis disposé en tant que ministre de tutelle recevoir leen jàmbaar yi ñëw jël si ñu daal di dem ci Augustin Tine il nous a reçu en présence des plus hauts gradés de l'armée ma defar ko historique du dossier bi ba ñu jógee ci Augustin tin le directeur de cabinet du président Macky Sall maître Oumar Youm recevoir na ma ci ba ñu jógee ci Umar euh, euh, Umar yum le premier ministre président jox ko ndigal pour mu recevoir ma en l'espace de trois mois maak premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne am nañu quatre séances de travail séance bi ci mujjee metti lool parce que ñu ngi commencé dix huit heures ba une heure du matin kon dossier bi itteel na leen te xam nañu ne njuuj njaaj am na ci euh, ba ñu pare ci loolu premier ministre ne ma je dois rendre fidèlement compte au président de la république mais balaa booba dama bëgg a créer une commission technique parce que man bu Ahmed Boun Abdallah Dionne du ma militaire pour commission bi valider version bi Jamra joxe sur la problématique de l'indemnisation des anciens combattants de la guerre du Golfe ma ne amul problème mu ne ma commission bi sama conseiller militaire moo koy jiite muy le général Amadou Anta Gueye dana la woo ma ne ko d'accord effectivement ñu toog ñaari fan le général Amadou Anta Gueye convoqué ma ba ma ñëwee fekk il était assisté du colonel Abdoulaye Ndiaye de la DIRPA la direction de l'information et des relations publiques des armées il était assisté par le commissaire Adama Diakhaté ñu woo ma taaj ma ci digg bi wër ma comme tribunal militaire ku ne di laaj may tontu ku ne di laaj may tontu yemuma ci tontu tontu bu ne damay indi kayit jox leen wan leen ne xaalis ñëw na waaye ña ko war a jot jotuñu ko ba séance ba jeexee la général Amadou Anta Gueye daal di tënk lépp jébbal ko premier ministre premier ministre fopp lépp jébbal ko président de la république kon foofu la ñu jotoon a yem ak état bi ma bëgg a leeral ni interlocuteurs yooyu ma tudd yëpp je leur ai tenu le même langage Jamra n'a pas varié dans sa version que xaalis ñëw na mais dañ ko détourné te jox naa leen ay preuves léegi nag rappelé naa leen ni guerre bi bi mu amee contingent bi toog di jàmbaar yi jóguñu rek ci seen coobare bopp dem fa déedéet Arabie Saoudite moo woote wàllu parce que ñëpp a xam nañu origine guerru Golfe Saddam Hussein moo jóg am des prétentions territoriales injustifiées parce que dafa nekk historiquement le Koweït faisait partie de l'Irak et joignant la parole à l'acte puisque c'était l'armée la plus puissante du Moyen-Orient mu daal di jóg envahir Koweït nangu territoire yu bari nangu puits de pétrole yu bari opinion internationale bi yëpp indigné Nations Unies woote conseil de sécurité dal di créer une coalition internationale de 34 pays de son côté Arabie Saoudite dal di lancer un appel à la oumma islamique pour ñu jàppale ko et le Sénégal a l'honneur d'avoir été le premier pays de la oumma islamique en Afrique d'avoir répondu présent à l'appel de l'Arabie Saoudite en mobilisant 495 hommes te loolu bettuñu ci armée sénégalaise je l'ai dit au président Macky Sall ndax nous sénégalais nous sommes fiers d'avoir une des armées les plus respectées waxuma en Afrique de mais dans le monde pour la bonne et simple raison le Sénégal est le septième contributeur mondial en matière de mobilisation de, de militaires dans des opérations de maintien de la paix septième contributeur mondial. Et en Afrique, nous sommes le troisième contributeur mondial, juste derrière le Rwanda et l'Éthiopie. C'est une armée qui est respectée dans le monde. Arabie Saoudite moo leen wo ñoom ñu daal di dem 495 mais cëpp Arabie Saoudite mission bi nag mu ngi waroon durer 6 mois mu ngi tàmbali novembre 90. war a jeex mars vingt onze mais yàlla dogal na euh, la leen coalition internationale bi sason et qui était chapeauté par Collins Paul la defe na euh, avec des des experts du Pentagone la ñu leen sason yëpp matal nañ ko et ils ont farouchement défendu Safania loolu la Saddam seen bëggoon nangu parce que mooy puits de pétrole ya nga xam ne ñoo ëpp rendement ci Arabie Saoudite mille un million huit cent mille barils par jour ñii sénégal yi ñoo ko défendre ba rëccul ci loxo Arabie Saoudite kon ay jàmbaar lañu ku leen gërëmul nga war leen a bàyyeeg la ñu moom waaye gërëmoo leen lañ leen jox nga détourné ko wow xol fa la mën a weesu léegi nag yàlla bi nga xam ne dara tewu ko ba ma expliquer ñi ma liim léegi ci pouvoir Macky Sall ministre des forces armées Augustin Tine maître Oumar Youm président euh, euh, euh, directeur de cabinet ak premier ministre li ma wax dégg nañ ko bu baax a baax waaye nag ñoom dañ ma poser une question nee nañ ma dégg nañu ne il est il est vrai que ñun nekkuñu woon au pouvoir ñun régime Macky Sall waaye dégg nañu ne am na as tuut suñu leen joxoon ma ne ko waaw ba ñu ñibbisee après guerre bi après guerre bi jox nañu leen un million par survivant un million quarante deux mille par veuve déjà loolu sax indécence mënul weesu loolu kon kon daal bakkenu ñi seen bakken rek quarante deux mille francs la la coûté ma ne loolu jox nañ leen ko ma ne ko waaye nag balaa ñoo egg ci loolu dama bëgg leeral affaire accident bi parce que ñoom ba ñu defee cette mission ba mu jeex war a ñibbi Sénégal dañu ba ñu ñibbis ba ñu waree ñibbisi dañu ne comme que du toujours la jullit di am occasion ñëw ci bërëb bu tedd bi balaa ñu ñibbisi dinañuy siyaar les lieux saints de l'islam makkatal mukarrama medinatul munawwara autorité saoudienne yi rafetlu ko daal di leen abal benn avion militaire benn 530 ñu dem defi seen umra bay ñibbisi ba ñëwee ba tiim la base aérienne de Ras Mechab guddi la woon il était 4h40 du matin le 21 mars 91 xamuñu lu xew problème de visibilité on ne pas avion ba daanu réservoir kérosène bi explosé 91 sénégalais faatu sur le coup 91 91 mu daal di am deux blessés extrêmement graves mu di le capitaine Mousseyès Dia et le soldat de première classe Mouhamadou Lamine Dramé waaye lakk yi ñu lakk ci essence avion bi metti woon na metti boo xam ne dans les vingt quatre heures après marée d'Italie suñu borom moom leen ce qui porte le bilan a quatre vingt treize jàmbaar sénégalais yu génn àdduna plus évidemment les six membres d'équipage ma ne leen noonu la accident bi demee je l'ai dit au premier ministre yëpp dama ko doon woon ay photo photo yaa ngi fii ba loolu amee le général le le le ministre des forces armées euh, Medoune Fall ànd ak les généraux et les officiers supérieurs de l'état-major ñu dem Arabie Saoudite ànd ak autorité saoudienne yi dem defaral euh, jàmbaar yi dëj bu rafet ba tabaxal nañ fa sax benn mausolée daal di leen rendre hommage loolu jeex voilà ma ne leen nag problème bi nag pour tontu li ngeen ma laaj ne am na as tuut leen joxoon j'ai dit au premier loolu am na ba ñu ñibbisee woo nañ leen état major jël un million jox survivants yi quatre cent deux survivants yi jël un million quarante deux mille jox ko les quatre ma ne ko loolu laa bëgg a leeral ndax loolu moo bloqué woon dossier bi ab nguuru Abdoulaye Wade ba amul woon a benn aboutissement ma ne ko loolu li état major bi def dafa ñaaw ndax ba ba ñii dañ leen jox loolu ne mooy seen indemnité de guerre ma ne du indemiser de guerre ma ne ko xam nga lu mu doon te boo laajee les officiers supérieurs honnêtes au niveau de l'état-major dinañ la confirmer lii ma lay bëgg a wax loolu lan la mooy opération de maintien de la paix boo amee dans un théâtre militaire extérieur c'est une tradition dans l'ONU mooy bu naree durer plus de trois mois comme que soldat ay ay ay ay doomi aadama lañ dañuy am njaboot di am yi souci di am njaaxle ci seen njaboot seen i doom seeni soxna alors bu naree ëpp trois mois et te le cas parce que ñii ñu ngi fa ñu ngi fi jógee euh, euh, euh, nu mu tuddati novembre war a ñibbi si mars kon six mois alors comme que seen bos dafa gudd Nations Unies dafa ne au bout de trois mois dinañ leen may congé les 34 contingents parce que contingent yi bëri na y avait Bahreïn y avait mu tuddati la France le Canada Burkina Faso bëri nañu 34 contingents yi kon ñëpp du ñu demandoo congé en même temps kon contingent yi dañuy jël congé à tour de role ku nekk boo demee sa dëkk di jours lañ la may nga nemmeeku njaboot gi am na lu ñu lay jox as tuut nga yóbbaale ko fay ndox fay courant joxe dépense yi scolarité xale après nga delluwaat sur le champ de bataille waaye ñii dañu am ngor gu day ni mais comme que egsi nañ ci toolu xare du ñu fi nekk di jël congé di dem Sénégal di dellu si dañuy toog rek ba guerre bi jeex ñu dem loolu waaw guerre bi jeex état major woo leen prime de congé boobu ñu leen waroon jox te ñoom jëluñu ko woon bi ñu nekkee sur le champ de bataille et je mets au défi tout responsable de l'état major de ñu démontrer que contingent ba ba ñu demee Arabie Saoudite jël nañ euh, euh, prime de congé jëluñu ko dañ ko bay ak ak euh, état major ba guerre ba jeexee état major woo leen daal di leen jox. un million par survivant et un million quarante-deux mille par veuve ba pare nee leen indemnité de guerre la du indemnité de guerre wax naa premise ministre ne ko boo oowee ONU dinañ la confirmer lii ma lay wax soldat bu nekk euh, champ de bataille buñ lay fay sa buñ lay lay fay dañu lay jox lu ñuy wax HLP c'est bien connu dans la terminologie onusienne mooy home leave per diem prime de congé ñoom jëluñu ko woon waa kon bu ñu ñibbisee ñi leen di fay waroon nañ am l'honnêteté morale nee leen la ngeen waroon jot ci champ de bataille yi te ngeen leen ngeen nañ leen ko dencal mu ngi nii loolu moo honnête waaye doo ko ko jox nag ba noppi ne ko mooy sa prime de guerre xam nga boobu lu ñu doon taafantaloo pour li Arabie saoudite war a yónnee ñu mën a wax ne jox nañ leen ko ba noppi te fekk c'est pas Et ça, nous l'avons démontré. C'est ce qui explique dossier bi avancé yi mu avancé ci régime Macky Sall mosu ko avancé ci régime Abdoulaye wala leneen parce que ci régime yooyu seen argument moo doon fay nañu leen mais nu avons démontré dans ce régime que loolu ñu leen jox ñoom ñoo ko moom seen congé la dara ak crime de guerre donc ba loolu leere le général Amadou Anta Gueye wooma en commission mooy commission bi ma leen di wax léegi mu ne ma lu tax nga ne loolu ñu leen jox du seen prime de guerre ma ne ko du moom HLP lu tudd home leave per diem prime de congé ma ne ko à titre d'exemple le euh, le 15 le le 11 septembre 2015 le monde entier a suivi dans les médias accident de chantier bi amoon Makka xam nga dafa amoon des travaux d'extension de la grande mosquée comme que nawet la woon ngelaw li bari grue yi nekk ci kaw mu am ci ñaar yu damm daanu dal ci kaw dallage bi dallage bi màbb fekk ay ñu doon julli ci suuf mu rey cent sept personnes il y a eu des dizaines de survivants loolu yéen ñëpp yéen a ngi koy fàttaliku parce que euh, la presse en avait parlé mais lan la Arabie Saoudite def Arabie Saoudite dafa ni il est vrai que ñi ñun Arabie Saoudite woowuñu leen fi dañuy ñëwoon pour umra te umra c'est un tourisme religieux waaye Arabie Saoudite am ngor gu day ni ne ñun jomb nañ en tant que gardien des deux saintes mosquées et en tant que membre éminent de la umma islamique jomb nañu ay jullit ñëw fii dontale wowuñu leen nattu bi dal leen ñu ni di si banque loxo loolu ñun jomb nañ ko loolu la gouvernement saoudien wax lan la ñu def nag j'ai la dal di jël par blessé ci accident de chantier boobu ku ne ñu jox la cinq cent mille rial ci suñu xaalis fii ñaata la cinq cent milliards soixante dix millions de francs fa par blessé. un million de rial soixante dix millions. non non léegi par mort par mort ñu jox la un million de rial muy ñaata cent soixante dix millions de francs fa Arabie Saoudite dana def loolu pour koo xam ne da doon doxantu rek la ngeen daanu gaañ la ba pare ka nga xam ne moom moo ko woo mu tuur deretam mu naan ko am un million yi et un million quarante mille loolu yenn wul maanaam ah El Hadj yenn wul maanaam maa ngi ñëw ci carte d'identité loolu laa wax autorité yëpp kenn ci ñoom weddiwu ko y compris le général Amadou Anta Gueye l'Arabie Saoudite a donné 70 millions par blessé dans un accident de chantier ay jullit di doon umra rek lenge dal seen kaw ñii mu woo leen ne kaay leen wallu wallu leen ma Saddam Hussein a ngi toj dëkk bi ñu ñëw tuur fa seen deret mu leen am un million par survivant c'est pas vrai détournement am na ah ba loolu amee nag président Macky Sall daal di dugg ci mbir mi naka la ci duggee mooy dañu organiser marche parce que ñu ñii c'est des pacifique organisé nañ ci mars le 10 décembre 2000 lan la 18 wala 19 waaw organisé nañ ci une marche te macha allah yéen presse wax dëgg yàlla defoon ngeen ci liggéey boo am solo ndax couverture ba ngeen def tax na Macky Sall di yëg coow li parce que ña ko war di wax dëgg duñ ko wax dëgg ñu ngi ko démarré place Obélix ba buntu RTS fa laa defee la déclaration finale sa ëllëg sa Macky Sall woo ma et je l'en remercie parce que n'était pas obligé de le faire amul benn chef d'état bu ci dossier bi bu ci ma ca woote amul Macky Sall li mu ci def nañ ko ko waxal rek bu ci deful woon dara ndax ñun kenn nenuñu ñun waa Jamra bu ci deful woon dara fii lay taxaw ne Macky Sall defu ci tous waaye woo na ma téléphone exprimer ma sensibilité am ci dossier yeesalaat ma ni que wax dëgg yàlla moom fekku ko fi woon ma tooñ ko sax ne ko yow de wax dëgg yàlla booba yaa ngi woon lycée ah 91 wala boog université di jàng waaye ñu ngi rafetlu yërmande bi nga dawal ci dossier bi léegi lu ñuy def mu ne ma foog ñu toog waxtaan ci waaw ndax man et je le comprends qu'il soit prudent parce que fekk ko fi te ñu def njombeli ce sont ses alliés dans Benno Bokk Yaakaar ñu nga toog <laughs> moo tax je comprends un peu euh, tey ji mu tey ci dossier bi mu ne waaw on va se reparler loolu laa wax ak Macky Sall après la marche qui a déclenché la réaction de Macky Sall ñu toog ba ma wax ni que dinañ contacter euh, ndeyi mbili liggi ñaari ndeyi mbili gi kowet ak Arabie Saoudite et je le dis dans la presse kowet def naa li ma war a def parce que def nañ journée de prière defe naa euh, mars la woon ambassadeur u Koweït daal di ñuy yebal son excellence Amadou Wade la chef du protocole l' ambassade du Koweït parce que ñii Koweït lañ doon défendre ak Arabie Saoudite kon ñoom ñu toog rek croiser les bras nit bu la walloo ba loru kay war nga seet noo def Amadou Wade ñëw ma présenté ko soldat yëpp ci journée de prière bi grande mosquée ba ñu paree mu ne ma ambassadeur bi nee na nga yónnee ko tout le dossier des anciens combattants fi nga jaar ak état bi yëpp nga jox leen ko jox naa ko ko ñu toogati ma ma wax ci presse bi ne danaa seeti ambassadeur Arabie Saoudite bi ko Macky Sall yëgee mu woo ma bii du bi yoon du téléphone de woo ma dem pale bi ma woowee il est vrai chef protocole am bi may wax ne président ne nga ñëw beneen ordre du jour la ma wax qui n'a rien à voir avec ça moom ma soxla c'est le président du Sénégal mooy mooy suñu kilifa bu ma woowee damay ñëw bi ma gisee ne beneen ordre du jour la man maa ñaan président nee ko dama bëggoon nga may ma donte les dix minutes la ma dugal ci affaire u jàmbaar yi mu ne ma waaw mbaa du gudd ndax yow sa discours yi yooyu ma ne ko noo du gudd dix minutes rek c'était en directeur de cabinet te xam nga Augustin Tine ba ma fa àndee ak yéen il était de des forces armées kon xam na dossier bi ma ne ko kon kii de kontaan naa ci teewaayam ndax am na fu fu jàmbaar yi jaar ak moom ndax wax dëgg yàlla Augustin Tine wane na ci yaatu gu rëy ndax recevoir nañu ñaari yoon du de alors ma daal di tënkal président problème bi comme ni ma leen ko tënkale ni accident bi demee ni ñu leen naxe jox leen prime de congé ne indemnité de yëpp moo ko il a pris beaucoup de notes parce que agenda bi mu yoroon li wax yëpp mu ngi bind rek voilà ma ne ko kon nag yaay le chef suprême des armées jàmbaar yi ci yow lañu yaakaar yaa leen njaboote yee ñoom ñëpp du woon ci yow nag beneen régime la fi fekkoon te maa ngi maa ngi ko doon takkine sax ne ko yaa un des anciens combattants illettré bu ma nee Euh, Jamra dama dégg ci dossier bi tout le temps yéen a ngi wax waxi continuité de l'État continuité de l'État lan mooy continuité de l'État ma ne ko continuité de l'État mooy Abdou Diouf bi mu fiy jógee bor yi mu fi bàyyi boru Ablaye Wade la Ablaye Wade ba mu fiy jógee bor yu mu fi bàyyi ak bor yafa fa Abdou Diouf bàyyi ñaar yëpp bor wu Sall la <laughs> waaw ma ne ko kon nag boru jàmbaar yi du ci yow de waaye sa bor la parce que yaay président de la République loolu mooy principe de la continuité de l'État bref ñu daal di tàggoo ma Macky Sall balaa ñoo tàggoo devant trois témoins yoo xam ne mënuma wax seen tur fii mu ne Makhtar boole naa la ak sama directeur de cabinet Augustin Tine pour bu ma jógee voyage mu programme une audience ñu mën ci discuter en profondeur loolu la ma président Macky Sall boo gisee bi ma président Macky Sall waxoo loolu j'ai pas insisté pour euh, Augustin Tine programmer audience bi parce que pareegu ma woon sama tournée dese woon na ma amba ambassade Arabie Saoudite te yàlla dogal na ko kañ barka démb kañ lañ fa demoon mardi maa ngi àndoon ak soxna Ramatoulaye maa ngi àndoon ak soxna Ramatoulaye Badiane présidente veuve ànd ak euh, soxna euh, Fat jaw présidente orphelin yi ak orpheline yi ànd ak seen kilifa di la secrétaire général El Hadj Abdoulaye Diouf ñoon laa ñooñ laa àndaloon bërkaati démb mardi le 14 ci ambassadeur Arabie Saoudite jële nañ fana information yu yéeme bon d' abord ñu ngi sant son excellence l' ambassadeur de l' Arabie à Dakar ndax il a été très touché bi ma ko defee l'exposé ci mettital yi ñu teg ñii mu ne ma ah bon te pourtant ils étaient venus pour nous défendre ma ne waaw waaw gis nga ni leen def metti na ko waaye na ngeen ko wax ne dès lundi plante ba dana dem ci procureur wax leen ko lool voilà la réponse et et et pour en finir avec l'affaire Rangou